infirmier yoo xam ne ngir avortement la nee ma yàq biir nga ne ma yàq ëmb yéene kaay gi nee na ñooñee nag jàpp nañu leen mandat nañu leen dépôt journal bi di Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum location bi nga xam ne jamono ji dafa cher ba jéggi dayoo location bi cher na lool lool loola ñi nga xam ne nag ñooy bailleur yi ñi nga xam ne maanaam ñoo moom seeni kër jamono ji maanaam nag dañoo xoj ñi nga xam ne ñooy locataires yi di leen luwe daal luwe yoo xam ne maanaam mbir mi daal njëggi yokk na ba nga xamante ni jéggi na dayoo cher na loolu askan wi ñoo ngi sonn ba maarade Italie te nag jamono jii kenn jëlu ci ay matukaay yéen a kaay gi di libération xëy wax ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yi nga xam ne moom la ñuy joxar bi baaraamu tuuma ay député yoo xam ne ñoo ngi bokk ci benn bokk yaakaar yéen a kaay gi nee na El Hadji Diadji Condé mi nga xam ne moo leen tuuma la moom nag jamono ji yàkkamti naa wax lool moom kon Diadji Condé yàkkamti na wax li nga xam ne moo nekk ci mbir mi yéen a kaay gi nee na am na ñeneen ñaar ñoo xam ne ñëw nañu ba daal di porte plainte El Hadji Diadji Condé yéen a gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté Eh, nee na en tout cas ñii nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ay daan yu métte métti la ñu war a jël daal koy lal ci seenu ndodd yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy dañu xibaara nañu nag ci kasu yi ak fi nga xam ne mooy ci commissariat yi ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan jamono ji nag lim bi ma ngi yokku bi nga xam ne moo si mujj nag mooy Cheikh Niass mi nga xam ne moom la ñu tegoon loxo mu mujjee nag faatu ci kasu bi Assane Samb xëy jël xalima ma nee na nag lenn rek mooy solution bi ñu daal di respecté li nga xam ne mooy règlement cinq cinq bu UEMOA ndax règlement cinq bu UEMOA li nga xam ne moom la wax bu la police tegee loxo wala gendarmerie teg la loxo la mu lay déglu daal sab avocat dina ñëwaat ndax nag lii nga xam ne moo xew ci mbiri Cheikh Niass xamuñu ba xam nag maanaam dee naturel la wala nag dañu koo rey te lii lépp nag ba ñu koy déglu bu doon ab avocat ba daal avocat bi dina mën a li nag mbir mi nag maanaam nan la tëddee yéen a kaay gi de l'observateur xëy dañu xibaar naan ñu deeg Cheikh Niass googee maanaam andi na nag pëcc xoo mer mu rëy rëy rëy ci biir police commissaire bi nga xamante ni moo nekkoon nag ci wàqi naan géejawaay te ñu jëlee fa commissaire ba commissaire ba wax na de ndax nag am na lu ko naqari loola moom commissaire bi nekkoon wàqi naan ndax nag moom daal jàpp ne mbir mi daal précipitation daf cee am mu bind ab lettre bu tàng jër ki nga xam ne nag mooy ministre de l'intérieur nee na ko nag dogal bii nga xamante ni moom ngeen jël daal ma fii jëlee loole nag acharnement la acharnement maanaam la a maa toroxal moom commissaire bi mooy wax ci biir journal bi ne li nga xam ne moo commissariat central moo gën a garaaw fuufa ndax nag booy jinne bi ñu ko téye commissariat central kenn si ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaloon booy jinee ci commissariat central bu dakaar la dee te nag matukaay yii nga xam ne moom lañ jël ci man jëluñu ko ci waa commissaire central bu dakaar yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu musiba gi daal jamono ci ma ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi ndax nag gox bii ci Dakar di Hann Bel-Air ab immeuble R plus genn wàll ci boppam moo daanoo am lu toll si juróom benn nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen kaay gi de la Tribune daat nay xëy ci Fatoumata Ndiaye mi nga xam ne moo fi doon wax Fouta Tampi te Fatoumata Ndiaye moomee nga xam ne na dañu koo tuumaal na dañu koo jox ay oto ba pare nag jox ko xaalis jox ko kër loolee nga xamante ni ay xibaar la loolee nag merloo na lool lool ñi nga xamante ni ñooy militant première heure yu président Macky Sall nee ma yu APR ñi nga xam ne daal ba dara du dara lañ doon jàppale président Macky Sall sonn ci moom lool ba mu toog ci bopp réew mi ñoom nee na nemmeeku maanaam ñi nga xam ne daal ñoo doon xas Macky Sall doon ko saaga ñooñu nag la ñuy jël maanaam daal di leen nekk nekkal yéen kaay gi di source a xëy dañu xibaar naan ñu soxam war dini maire bu Ndakaaro bu mu jàpp benn yoon ne coalition Yewwi Askan Wi moom la ñuy jël nag investir ko ngir nag mairie bu Ndakaaro ndax moom soxam war dini daal gars yi dañoo jàpp ne maanaam nag membre benn Bokk Yaakaar la jamono ji bu ñu waxantee dëgg Barthélémy Dias mooy pole position maanaam moo nekk ci njobbaxtal gi ngir nag nekk maire bu Ndakaaro a yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi am nañ lu leen doy lool ndax kaaw Barthélémy Dias la gars yi di lijjantee yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko moom ak i avocat ma daan nañuy saisir maanaam jokkoo nañu ak juge Assane Thioune mi nga xam ne mooy juge deuxième cabinet bi géré premier cabinet yor dossier Ousmane Sonko bi avocat yi Ousmane Sonko ñoom nag ñett la ñu sàkku ci ki nga xam ne mooy juge Assane Thioune bi ci njëkk maanaam daal copie dossier bi beneen bi daal ñu déglu jublu Ousmane Sonko ci ak xóota la bi si topp nag ñu daal lëfeek li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi yéen kaay gi ne ne Ousmane Sonko yëngalaat na dossier ba laas yéen kaay ñu xëy fekk fa Abdoulaye Balde moom Abdoulaye Balde yaakaarul benn yoon ne viol am na moom Abdoulaye Balde nee na nag en tant que ancien commissaire xam ne daal moom laa dégg loolee daal yéeyu ma ci mi yéeyu ma de te jàpp ma ne Ousmane Sonko maanaam violé na xale bi yéen